Ah, tey nag ñu ñëw di assister li nga xamante ni moom mooy deuxième édition bi nga xamante ni journée sociale bu muy def chaque année ren nekk deuxième édition ñu ñëw assister ko fi nga xamante ni moom mooy Parcelles Assainies mais laata ñuy def dara dana kii di artiste bi di Queen lay ziar. maa ngi leen hmm, euh, gërëm ci seen teewaay hmm, di di di di remercier toute la presse daal ici présente vraiment. d' accord ki ñu gis à chaque année nga koy organiser ren nekk également la deuxième édition. Mm-hmm. lan nga ñu mën a wax carrément ci ndog yi nga xamante ni yaa ngi def chaque année. waaw ndogu yi moom tàmm nañ ko lu ñu miin la te franchement dama ciy gërëm nag euh, ñi am initiative bi muy sama fan club bi waaw ci mel ni Queen Club International nga xam ne ñoo woote. te chaque année dañ koy faral di def euh, noppal ma ci lool nag ndax euh, boo xoolee yëf yi lu muy rëy rëy rëy ñoom la. Euh, nee naa édition ren bi sama sama sama 1000 francs dugg ci franchement ñoom ñooy cotiser ñoom ñooy def lépp ñoom ñoo jënd seen lépp lépp lépp lépp man dañ ma dañ ma woo rek ne ma man ne ma da ngay ñëw euh, bés ba sa bés la donc euh, franchement dañuy def à chaque fois du social ah jiital ci seen artiste ah bëgg rek seen image artiste gën a gën a gën a yànj parce que xam nga ni ñoom yàgg naa ak ñoom ci social mais xam nga boo amee sa ay fans début bi début bi ñu commencé di def euh, social c'est vrai que man dama ci doon def sama doole ci def sama sama sama xaalis di ci def lu ne mais tey dama dem yëf di màgg ba ñu noppal ma billaahi ak weeru koor gi parce que foofu sax lañ bëggoon ñëw parce que dañoo gis ne ren mbir mi dafa jël beneen ampleur mhm. euh, ñu gis ne ren dem na ba mhm. ñu gis fi ay nag yoo xamante ni ñoo ngi ko fi rey ak yeneen mbir yu bëri yoo mhm. xamante ni am na fi donc ñu bëggoon xam mbir mi kan la koppar gi fi muy jógee billaahi ñoom la ci weeru koor lañ nekk bu ma la nee ñii bi ñuy def seen budget di génnee di jënd jënd seerage di jënd ay nag ay vidéo rek lañ may yónnee di ma yëgal naan ma xoolal lii lañ tànn lii lañ def lii lañ bëgg a def lu ñu def rek te muy lu rafet ma approuvé mais dañ ma ne ci sa dërëm bu mu ci dugg billaahi noonu lañ ma noppalee nag man maa ngi yéen ci yem damaa ñëw nii rek xam nga ñu jox ma séddaleel ñu def ma lii def franchement ñi aw ma seen fay moo tax ma woo présidente bi mu toog di Aïssatou Biz moom dama bëgg Sénégal ñëpp ñu bàyyil ma kii xel xam nga olof dafa ne lu yàgg dëgg la kii dañu yàgg bu fekkoon nii euh, caaxaan moo ko indi ci man wala li nga xamante ni du dëgg kon du fi toog ba tey sama premier album 2012 bi may def sama lancement bi fii ci cinéma unité 3 am na benn jigéen bu ngeen doon gis mu sol yëre bu weex bind yëre bi yëpp Queen Biz gënoon a nekk xale moom la woon parce que léegi c'est bien c'est 10 ans ah. moom la woon àdduna di dox kii dafa bëgg Queen ba ba jël ko yóbbu ko Maroc ne ko dama jàngi parce que kii xam naa ne bu fi toogoon topp ma euh, jàngam sax day yàqu mu dem mu demee Maroc ñuy déggante mu ne ma ah bis yóbbu nañ ma de ma ne ko may baax na man damaa bëgg jàng ndax man damaa jàng donc samay fans damay bëgg ñuy jàng parce que man du ma nekk damay way xale yi naan leen topp leen ma rek du ngeen jàng ma na ko non ison ont bien fait yow nekkal foofu ngay jàng ñuy déggante di déggante di déggante ba mu jógee fa dem Brésil mu nekkee Brésil it taxul mu bàyyi benn yoon fa la gën a jàpp moom saa bu soree kiwin day gën a jàpp jóge fa nekk Argentine bi mu nekkee Argentine it day woote valise mu yónnee yére mu yónnee dàll mu yónnee cheveux mu yónnee xale bi bëggul dara moom lu mu lu mu am yëpp kiwin moo ko ko gënal naan ma dañuy dem ba ma lay jëndal ay oto ay kër yéeneem ëpp na loolu billaahi wallaahi kii dama bëgg ñëpp tey Sénégal xamal ma ko seedeel ma euh, jàppal ma ko ku ma bëgg rek bëggal ma kii. dégg day dégg lu ne. mais tey jii yaay la ci xale yi. xale la de mais fan club yëpp maman lañ koy maman bii dañ parce que dafa am benn kii de responsa benn kii bu nekk ci moom daal benn leadership bu nekk ci moom. elle sait gérer. su problème amee daf ma noppal parce que man problème yu bëri man la ñuy woo Queen lii lii mais moom lu muy yëg da koy gérer ne leen noppal leen Queen bu mu ko yëg donc maa ngi koy gërëm di ko sant. dama koy gërëm di ko sant moom moo dajale ñëpp Queen Club International nag dafa nekk affaire bu rëy waa diaspora bi dégg naa sax liñ ciy def waa Sénégal bu ko ci def te xaw ma leen billaahi wallaahi xaw ma leen kon xam nga genre mbëggeel yooyu dafa doy waa bëgg nit di ci def sa alal di ci def sa doole di ci def sa xalaat bul jooy te xamoo leen loolu dafa neex kii daf ma koy wax ñii seen fans club dafa am doole en fait dañu am doole ils ont les moyens macha allah te nee na ma chaque fois ni may ne Queen gërëmal waa diaspora ñoo ciy def seen doole di ci def seen kii ak ñi ne Sénégal it xebaluñ leen benn yoon. macha allah foofu sax laa bëggoon ñëw. parce que mhm. gis nañ ne actuellement. Mhm. Kirbis copte ay xale. Mhm. copte na également ay étudiants. bu ñu gisee fans club bi nekk Sénégal. ak bi nekk à l' international. alors mais dañuy ñëw ci Kirbis ak ci li nga xamante ak waa Gambie ak waa Gambie. waa Gambie ngi ni Binta Pa Boy am loo xamante ni faaw ñu ñëw si muy Kirbis ak ni muy solo ci ay clipam. te Kirbis ay ndaw. copte ay étudiants. alors est ce que du am des fois parents yi ak fans club yi. Mm. yuy wax yenn yi Queen Biz est-ce que war nañ ko topp ak ni muy solo ak yooyu est que yooyu doo koy dégg doo koy dégg. non mais.